xam nga da nga da ngeen di joxe souvent l'exemple des des des des États-Unis ou de l'Inde xam nga foofu ñoom ces journalistes là ils dans des idéologies idéologie de gauche euh, idéologie euh, euh et donc ñoom même dans l'exercice de leur profession ñoom oui. dañuy défendre des idées de gauche mais ils ne sont pas dans le non ils ne sont militantisme politique non, non comment ça comment ça non ils non, prennent des non, positions waaw, claires idéologie la une culture la waaw, mais, une idéologie la par exemple ñu ne euh, par exemple quand c'est un régime socialiste euh, lii mooy seeni valeur doctrine sociale yooyu nga ma bëgg a tojal fii non non fekk ma non non non mais ñooñu du ñu dem ñooñu bokkuñu jëluñu carte jëluñu carte parti ñoom ils sont dans l'idéologie et les valeurs politiques mais d'accord naa ah. déggoo li ma wax dama ne la dama ne la euh, ma jàmbal jënd na carte non. mais moom dafa wane carrément ni il soutient le président de la république man dinaa ko ci mere jamais du ma ko mere parce que moom moo tane ay dara boo xamante ne nii dafay saf euh, euh, euh, nu mu tuddati xaw ma ni ko olof di waxee doon bëy sàngo deru bukki di di làqati di tapale moi oh! ma question c'était pas une c'était euh, avec non. toutes tes euh, mais député mais tu m'as invité non voilà avec Vous toutes lan moo tax nga décider euh, delluwaat lu de ci sa ci say activité non delluma samay activité pour la waaw ah. man ku ma invité matinal damay ñëw boo ma invité le soir su ma amee jóg ah, d'accord donc Sen TV dellu loolu dañ lay invité non may may te te bu ma amee occasion dellu damay dellu parce que loolu mooy suma métier. man loolu euh, mooy suma métier nga yow man may man nekk ma mag nag. yàlla na la ci Babacar Diagne bàyyi alors ñu dugg ci sa waxtaan mais Babacar Babacar Diagne moomu. <laughs> Babacar Diagne waxtu wi dafa jot may pour nit ñi wax ak moom. c'est-à-dire. le soleil barki démb lan la fi def waxul ne Amadou Ba. à une am na 3 millions de pare c'est de l'information. c'est de waaw. non may xam nga yow nag xam nga yow. information xam nga non non non mais attendez waaye. xam nga non non non yow yow li nga def sa ligne éditoriale waaye yow kii élection yi passé nii yu mujj yi nga xamante ni nii ñoom ñëpp ñii dissident yëpp demaguñ ñoom mi ngi amoon un million cinq cent. 45 pour cent ci élection député am 82 xaw ma 83 les Yewwi avait 1 million 70 mille. am am am am am am am am pour cent nga ñëw ne yow dajale ngeen 3 millions parce que tout simplement am na peut-être loo leen di waaj le quotidien national loo xam ne peut-être da ngay ne xoolal quotidien yi daal léegi moom sa waay ku jug rek sa benn euh, euh, mouchoir ne ab quotidien lii quotidien la léegi mais le quotidien national titré loolu nga ne loolu c'est une info. non c'est une info. ah bon. am na 3 millions de pare. xaw ma waa benn bokk ah yaakaar ñoo joxe seen chiffre. Euh, moom mu diffuser ko. mu diffuser ko moom mu moom mu diffuser ko. mu diffuser ko euh, est-ce que est-ce que ce que mën nañ ko ci mën nañ ko ci yóbbu ci yoon kenn mënu ko ci yóbbu ci yoon. mais am na yoon. ah le tribunal des pairs là. waaw te du yaa fi tudd léegi Babacar Diagne. mën nañ mën nañ ci wax fan la Babacar Diagne nekkoon instant bi soleil di wax naan amadu Ba ak di privé. l'opposition leur une. mais mais mais mais Babacar Diagne régulation de l'audiovisuel la. de de l'audiovisuel la ah. de l'audiovisuel peut-être qu'il faut ah, qu'il faut ah, saisir le correct. déglu ma déglu ma expliqué dama ne Babacar Diagne amul bis bu mu xëyee te du épinglé les télé yi nga xam ne dañ leen tuddee ne ñoom daal ils ont une ligne éditoriale salée lu mel ni ay man sax si FM laay tudd ak ak Sen TV parce que man foofu noonu laa nekkoon. mais Babacar Diagne du yeewu rek di épinglé. du yeew rek di épinglé. waaw ah bon du yeew rek. di épinglé mais mais yow yow mës nga gis benn opposition bu jàll RTS. c' est pas normal ça dañ ko war a dénoncer c' est ça veut dire. Babacar Diagne bu épinglé c' est normal. non c' qui me dites que c' qui me dites li ñu war a wax mooy. li ñu wax mooy qu'on traite tous les médias euh, sur le même pied d' égalité. c' est que yow may leen ah. rek moom mooy sa cap. Ah. mooy yow da ngay wax ba pare di weddi sa bopp. non non non non c' est vous yaa ma wax léegi nga ne ma kii dafay réguler l' audiovisuel. Ah. ma ni la. est-ce que gis nga mais du temps de Ablaye Wade sax doon nañ ko jéem a rafetal tuuti jël ñoom ay Malick Gakou Mamadou Diop Decroix ak yooyu ñuy génne RTS ñu ne ça c'est l'opposition mais ce RTS opposant duñ ko couvrir opposant duñ ko invité débat bi fa am politique pluriel amatul c'est anormal. est-ce que CNRA daf ci est-ce que mës nga gis CNRA wax na lii c'est anormal comme ni ñuy jàppee les télé privées di leen wax na leen lii mais xanaa xanaa sénéra kon ñoom daal benn bras armé la boo xam ne non c'est anormal RTS organe public la tout le monde y a y a droit c'est tout le contribuable moo fa am droit ku ci yor sa média bu la neexee nga nga ko sa média sax amoo droit tere ko tere ko tere ko tere ko nit parce que après tout même boo nekkee média privé délégataire de service euh, public nga et tu dois respecter ah, le droit à l'information loo xam ne yow média public la voilà ñi fay liggéey yow yaa leen di fay ak man ak moom Babacar ak keneen ak keneen la sénégalais lambda sénégalais lambda yooyu nag. mais def leen pétition loolu mun mun ngeen ko mun ngeen. ko ñan ñooy def pétition. oui mais mun nañ def pétition. société civile non c'est que xam nga xam nga yéen nii non ban société civile. yow am na yoo xam ne t'as pas besoin de faire les universités d'Europe là pour le savoir jaru ko jarul ay pétition jarul léeg-léeg mais loolu dafa normal nii dafa normal lu normal la nii nañu xam ne dëgg peut-être le privé sax bu la neexee nga jékki-jékki sax siisu. ni kii kat daf ma def lii ak lii ak lii maa investir fii te loolu sax du raison amoo droit sax def ko. non dama ne te loolu sax du raison. amoo droit sax raison nag loo xam ne yow média d'état la mais Macky Sall bi mu ñëwee ba tey yow gis nga benn opposant bu toog RTS Babacar Diagne est-ce que mës na ko naqarlu xam nga man lu ma bokk ak Babacar Diagne. Hmm. xamoo ko de. non moom su ma wëlëree bàyyi la déggoo ma de moom moo ma xam. man sax xaw ma ko woon te moom ñi ma feeñu moom bokk na ci. Babacar ku baax la. déglu ma expliqué la rek. waaw mbaaxam googu nag na ko matal ci liggéey. waaw dëgg la mais Babacar ku baax la. non waxuma la ba léegi nii ne dafa bon de xamala moo tax may wax nii di ko tudd nii c'est dans le cadre de son travail ci liggéey man moom laay waxee mais la Babacar Diagne de ko côté man waxuma loolu. mais régulation ñëpp ci war a bokk ñëpp ci war a yem. mais loolu amul nag may. dañoo war a tëddee njaaxaanaay loolu moom je suis parfaitement d'accord mais loolu moo amul. mais Ahmed ñu dossier politique yi ak géejewaay bi dafa bari. mais yow laay déglu.